doomu Sénégal Macky kese moom la ñuy fal fu la ki ma gis mu koy dofe ba noppi yaru lool waa jaangi ni moom la ñuy fal dara jaru fi wax ñu bari desaar ñun waa Sénégal Macky ñu doy moom la ñuy fal ku nekk ngi wax ñu tëb di dal toog leen ñun waa Sénégal Macky ñu sab moom la ñuy fal dara jaru fi coow lu bari président Macky Sall a repositionné la région le département de Kaffrine au cœur économique du Sénégal et c'est ça que vous êtes venu matérialiser moo tax tey kàddu ngërmande rek lañ am ci président de la république delloo njugal président de la république El Hadj Aliou Diané wax na investissement yi fi def yëpp te lu mu tudd te lu mu tudd des na lu bëree bare bare bëri tey monsieur le ministre Dame Diop malgré sa calendrier chargé da nga nekk ci campagne électorale ci Diourbel président wóolu la fa jiital la fa nga bàyyi lépp pour ñëw tey poser le centre de formation professionnelle de Kaffrine loolu daal amuñ payam président mënoon na bëgg mais nga yéexal ko président bëgg na nga defar Kaffrine yow nga gaawantu def ko dans des moments extrêmement chargés moo tax daam man xam naa ni soo mag xam naa ni suma xarit nga mais xam naa sa loyauté ak sa engagement derrière le président Macky Sall moo tax lii nga def nii bettuñu rakk ju ma doon sa wet yaa ngi koy dëggal tous les jours maanaam dañoo bokk Diourbel parce que man bi ma gën génnee Kaffrine Diourbel laa jànge li fi nekk yëpp ministère Dame Diop ak ñi war a tabax affaire bi ñoo ko fi def loolu nag ñu gërëm la ci bu baax bu ñu la gërëmee gërëm sa ministère yëpp sa direction yëpp depuis deux jours ñu ngi fi fii tàng na. mu ngi taw mais ñu ngi xuus ci taw bi xuus tàngaay bi pour boo ñëwee nga fekk fii lu rafet te wax dëgg yàlla fekk nañ ci lu rafet mais nga may ma aussi ma remercier monsieur le gouverneur de la région de Kaffrine su ma remercier monsieur le gouverneur de la région de Kaffrine ma remercier monsieur le préfet du département de Kaffrine na wax président ñu ngi lay fii ci Kaffrine département bi ak région bi am nañu kilifa yu mat kilifa nañu kilifa yu mat kilifa parce que ñoom ñoo fi teewal président de la ñoom ñoo fi toogal président de la te wax dëgg yàlla muy préfet muy gouverneur toog nañ toog yu nga xam ni rafetlu na ko ñun ñëpp mais ma remercier aussi particulièrement muy benn jigéen na jigéen bu mën góor mooy sous préfet de Gniby lii xale yi lañ ko defal président Macky Sall bokkul ak kiy wax ak kiy digee xale yi Kaffrine la ko defal xale yu département de Kaffrine la koy def xale yu amul métier fii la ñuy jàngee métier te bu ngeen gisee liñ ci def 46 salles de classe presque mu am fépp fu nit mën a jàngee métier mu am sax fu nit di jouer basket handball ak football loolu mooy pro mooy vision président Macky Sall mooy xale yi ñu may leen fu ñu fu ñu leen tawatee fu ñu leen jàngalee métier mais aussi fu ñuy amee bànneex moo tax ministre monsieur le ministre ginnaaw. bi ma gërëmee président de la république ci li mu def gërëm la gërëm askan wi jàpp ne xale yi danañ ko utiliser ni ñu ko war utiliser pour ëllëg président de la république bañ a rus parce que jeunesse su Kaffrine la wóolu jeunesse de Kaffrine la la delloo njukkal ci seen engagement ak seen détermination foofu nag laay jeexalee vraiment monsieur le ministre féliciter les jeunes de Kayi les jeunes les jeunes de Kayi les femmes de kay qui se sont mobilisées tey monsieur le ministre li am. war na war nga sant yàlla bu baax a baax ci nawet lañ nekk ci tool yi lañ nekk jigéen ñi xale yi bàyyi nawet bi bàyyi tool yi puus ndox mi ñëw teeru si la mais bu ñu ko defee jug la koy def mais président Macky Sall moo tax ñu defal lii yëpp parce que ñun ñëpp muy daam muy man muy daam muy man muy Abdoulaye Wilane muy Talla Cissé muy keneen ku fi cëppi cëppi rek Macky Sall tax ku fi jëppi jëppi ci réew mi rek Macky Sall tax li ma leen waxoon rek ñun ay jën lañ ci biir ndox jour boo ñu génnee ci ndox mi ceebu jën rek mooy baax ci ñun alaaji Abdou Aziz Dabakh doon wax du ragal njabootam maa ngi ñaan 46 borom dëkk yi teew fii di ñaan mboolem ku am baat ci dëkk bi ak ci des régions bi kilifa diina ak kilifa aada ñun ñëpp ñu taxaw jàppale lii mu gaaw a sotti waaye di ko yéexal ak a gargaral ba mu tardé ba yóbbu ko beneen dëkk te ñeent rek a ci am ñu tàmbalee fii bu boobaa ñoo toog suñu bopp lii ñuy def fii waxuma la njëriñ li muy njëriñ askan wi ci lu teew ak ci njàngkat yi waaye li muy njëriñ gox bi ak suuf si suuf si rek ak fii yëkkati niveau ak valeur ëpp na la ci di mën a am bala borom tool di mën am loolu moo tax maa ngi gërëm le ministre Abdoulaye Seydou Sow di gërëm Aliou Diagne ak ñoom Taha Diagne ci taxawaay bi ñu jël. waxtaan ak askan bi Dame Diop Dame Diop defee li wolof di wax namu ca yebu ca ku ma ci ba wax ma jël mu ànd ak tawartaande xaw ma lu ko waral waaye jàpp naa ne xaritoo ak coxalam gi am diggante ak Ablaye Seydou Sow bokk na ci lindi lii président de la République Macky Sall moo ko am jëmale ko ci ndawu Sénégal ndax li ñuy def tey mooy teg xeeru centre de formation professionnelle bu mucc ayib président de moo ko digoon ndawu Sénégal yi monsieur maire wax na ko yow wax ko ko li président de la République digoon Kaffrine région Kaffrine jàpp naa ne def na ko kon boog lii ñuy def tey dafa bokk ci vision bi nekk ci biir plan Sénégal émergent taxawal fii nag centre de formation dañ ko door ci Kaffrine waaye président engagement bi jël moo ci ñeent fukki département ak juróom-benn yi nekk ci biir Sénégal fu ci ne ñu def ci centre de formation bu mucc ayib bu mel ni bii ñu teg léegi xel kon boog Kaffrine est à l'honneur aujourd'hui mais buñ fi jógee dinañ dem ci yeneen département yi pour def li ngeen am fii ci Kaffrine nag centre bi wax nañ ko léegi ci at bu ne dina war a mun a tàggat lu toll ci fanweeri junni xale mu nekk centre bu mucc ay centre bi dina toll ci ñeenti hectares ma bëggoon sant monsieur le maire sortant de Kayi mais aussi maire wu Kayi ñi nga xam ne ñoo ñu yombal li pour ñu am centre wax naa ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi ak tous les partenaires président la République daf ñu jox ndigal pour ñu baral liggéey naam liggéey bi amoon na yéexte waaye Abdoulaye Wilane wax na li ñuy wax il faut savoir perdre du temps pour en gagner davantage ndax centre bi bu ko président waxee ba léegi nekkatu rek école yi ñuy tabax que centre bi ñuy tabax fii moom la ñuy tabax Guinguinéo moom la ñuy tabax Koumpentoum moom la ñuy tabax Tamba centre bu nekk dañ koy gëstu xool ci fi ñu koy def lan moo fa nekk activité économique loolu moo tax seen centre bi dana wute ak yeneen centre mais dinañ fi jàngale fondamentalement lépp loo xam ni dafa jëm ci mbay parce que xam ngeen ne PSE dafa sukkandiku ci mbay mais ci mbay bariwul woon ay offre de formation moo tax centre bi métier yi nga xam dafa nekk ci mbay au sens large mooy mbay càmm ak napp ak yu mel ak transformation dina am fii ci biir centre bi pour ñu tàggat fii ndaw kon boog loolu suñ ko defee président de la République dafa bëgg jàpp dafa jàpp ne Sénégal téeméeri ndaw buy wut liggéey juróom-benn lay borom xam-xam yi wax ñoo am qualification loolu nag moo tax président bëgg a soppati mbir yi mu ne dafa bëgg fii ak deux mille trente téeméeri xale yu jàng école ñu tuddee que surtout fondamental dem ba troisième fanweer yi mën a dem defi formation professionnelle ñu jàpp formation professionnelle bu yàgg dañu foogoon rek ku dem ci école bi ba lajj mooy dem defi formation professionnelle. président de la République nag bëgg a wëlbati loolu ñu jàpp ne dafa war a nekk vocation pour xale yi maanaam nga jàng ba troisième oo lieu nga dem defi jàng mu gudd nga décidé dem jàngi métier parce que soo bëggee am liggéey bu baax di ci suturlaw yow ak sa njaboot pour nga am liggéey boobu faaw nga am au préalable une formation juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaari sant rek moo amoon tey président de la mu ñëwee def na téeméer ak fanweer. yokk yóbbu na ko ba téeméer ak fanweer ak ñaari sant te bokkul ak ñeen fukk yi ak juróom-benn yi nga xam ni war nañ ko tabax kooku boo su waxee ne yitteel toppatoo ndaw ñi tàggat leen toppatoo jigéen ñi yitteem la mën nañ ko gëm ci juróom fukki at yi ñu defagum mu tabax ñeent fukki sant ak juróom-ñaar def ci lu mat téeméeri milliards nee na ma priorité yàgga dimbale Kaffrine moom Ablaye Sow militant engagé yow Ablaye say jëf du réer say jaloore siw nañ bu curu jotee kenn waru la ëppale laay waaye tee nga doylu nga dal nga bi ñoo yónni waa nee nañ ñëwee bëgg nañ Kaffrine mel ni Dakar village sous-préfet doon na fi waxtaan ak kii bi waaye xam nga ne programme PIMA dafay gën a intervenir ci pegg yi ci commune nekk ci frontières yi léegi bëgg nañ commune bi amul ambulance yoon normal ambulance bi fi nekk bi nga ñu joxoon noonu bu tawee mënul génn waxuma la biir dëkk yi waaye rang bi sax xam na nu mu demee sax du mën a génn loolu bëgg naa aussi nga taxaw ci beneen beneen bi ci tegee euh, beneen bi ci tegee mooy am na mille de clôture boo xam ne léegi dama bëggoon nga dugal ci sa loxo ci mur de bi nekk fi fi armeel yi fi yeneen bëgg naa nga dugal ci sa loxo loo gis day tàmbali benn ñaar ñetti ñeent ñee dëkk jamagaajo gii bu ngeen gisee goudron bi ngeen yëg tey jóge Kaffrine ñëw ngànda te yàlla am na ci mébét président Macky mu egg bi ay jamagaajo ak yeneen dëkk yi ngeen xam ne président Macky Sall jàmbaar la juróom fukki at Mbaye Niass 60 ans ngeen di xaaj goudron Nganda Kaffrine yàlla ci nguuru Macky Sall yàlla sottal ko loolu rek rek rek rek na élection ngeen ñu wootee Macky Sall ndax dafa yàgg juróom fukki at ak teg kuy ñëw fi ngeen jàmbat ko ko Macky Sall taxaw fi def ko loolu donc doj na campagne Abdoulaye Seydou soow olof day wax naan mbaara bukki ku xamul mbaar it dégg nga sabinu mbaar mbaara bukki def nañ ko fi directeur général lu ko jiitu fi mu yeggale xale yi Kaffrine ak seen yëngu ci wàllu sport ak ni mu taxawoo jeunesse ci wàllu politique dégg ngeen jalooreem dégg ngeen jëfam di def ko directeur général kudd ngeen dégg taxawaayam ak ay jëfam ñu jox ko ministère bi ñu ko dénk dëgg-dëgg yàlla muy jàppale xale yi jàppale jigéen ñi Ablaye ëpp njëriñ ci jàkka yeeg jumaa yi Ablaye gën a sawar ci sox faj soxlaay doomu aadama yi ak ñi jàngoro dal ak ñi néew doole Ablaye Seydou Sow moomu lañ bëgg ñun waa Ndoukoumane ñi ànd moom bokk moom jamono xam njàmbaaram xam ay manoreem ñi ñëw dagaan leen ay baat pour ngeen woteel ko nga loo xam ne mosta am ci Sénégal mën nañ xarab président yi fi jaar yëpp mais Macky fu mu jaar ci département bi ak ci région bi ñu war ko wax jaajëf dafa fekk département bu nga xam ni maître goudron amul woon ci biir maitre goudron Macky Sall moo dugal yoonu kafrin Nganda Macky moo koy ren ren jii mu àggali ko mu àgg ba Diamagaajo mu jóge fa mu ne bule Mbirkilaan Maabo mu jóge fa mu ne Kaffrine Mabo Kaffrine Sorokoñ Kaffrine Tun mu ñu war faa jóge Koungheul Lour Ribo ñu war faa jógee Malem Daaru Minam en 60 ans Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade n'ont pas mis un mètre de goudron dans notre département un mètre un mètre ko fii hôpital hôpital hôpital de 25 milliards de francs CFA pour la région de Kaffrine kenn moo ko def université à Kaffrine kenn moo ko def mu tabax stade bu Kaffrine mu defaraat ko mu war a defaraat stade pour région bi yëpp stade bu nga am ne sept milliards virgule cinq gis nga ku suut sa baay ne ko bàyyi boo ko mënul wax maam Macky Sall fii amul ku fi taxaw ci région bi man ñu am ay gàcce di ànd ak Macky Sall fierté mooy ànd ak Macky man kay xam nga lan laa mënul àndal ku nga xam ne tu fais la politique nga nekk suñu morom muy Sonko man duma ma ci ragal dara ñaata yoon ñaata yoon la taxaw fii ci région bi campagne électorale ba campagne électorale Abdoulaye Wade bu muy wut réew mi guy madi buri gii Abdoulaye Wade moom moo sa yóbbu ñëw guddi yóbbu ñu guy madi buri maa ngi koy wax wilaan ci oto bi soro koñ Abdoulaye Wade moom fa njëkk a yóbbu alors que man Kaffrine laa dëkk parce que opposition da ngay dem ci askan wi mais nekk ci télé di wax lu dëgg nekk ci réseaux sociaux di sos lu dëgg nga foog tu peux manipuler personne ne manipulera cette population man man doomu Kaffrine laa ministre bi costume la ba ma dul sol Kaffrine ministre bi ma doon su ma génnee région de Kaffrine laa koy sol mais fii ci département de Kaffrine fii ci région de Kaffrine doom rek laa fi mën a nekk rongoñ yi fi nekk rongoñ yi fi nekk balaa Sonko jë faj ko fi ou balaa Habib si faj ko fii man maa koy faj mais li des ci kay fara dañu wax ko fii doléance courant bi dëgg la courant bi moom dëgg ju wër la te balaa maa ñëwaat fii courant dana fi dugg sinon suma su ma ñëwaat te courant ñëw fi du ma ñëwaat du ma ñëwaat suñu paree élection yi incha allah combat yi may njëkk li mooy combat wu yi surtout dëkk yu nga xam ni soriwul ci électricité bi quand loolu on doit pouvoir le régler te bu ñu xoolee ci accès à l' électricité li wax na ko ambulance bu doon daw fii ci Diamagaajo maa ko jënd kenn joxuma maa ko jënd indi ko fii kon kay man mii mën naa fi daagoo nu ma neexee parce que bi ma yorul dara bi ma yorul dara laa ñëw bokk ak ambulance boobu Aliou nee na ma dafa paan boobu itam fii ak une semaine naa leen joxaat beneen ambulance bu bees sax fii ak une semaine maintenant loolu mooy jigéen ñi jigéen ñi moulin bi ak ambulance bi lañ wax wax nañu aussi. jeunes yi ñoo ko wax clôture cimetière bi cimetière bi dinaa leen may 10 tonnes de ciment dinaa leen may 10 tonnes de ciment ngeen xool fu mu àgg bu après bu jeexut ngeen ñëwaat ñu àggali ko mais en tout cas li xale yi wax fii toj na.